addiye ji nga xam ne at mu jot daaru salaam moom la ñuy jébbal ki fi nekkal Serigne Touba jébbal nañ ko xalifa général de Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou ci àllarba ji dëppook 27 janvier 2021 ca daaru salaam addiye ji ñu xayma ko ci 232 millions 195 mille francs CFA boole ci almet ji nga xam ne moom la cosaanoo àndal di wane rek ne addiye ji ñoom noppi nañu ci sëriñ bi nu ko neex mën na ko def addiye ji ñu ngi ko jébbalee sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiiru ci Daaru Salaam ndax sëriñ bi dafa ñëwoon doon jaale si xalif bi nga xam ne moo wàcc tey jii di sëriñ Jiili Mbàkke ñu profité daal di koy jébbalaale addiya ji ci fàttali daaw jébbaloon nañ ko 191 millions yu teg ren ji nag ñu yokkaat ci 41 millions yu teg